خبر نتو يالا ولا زيارة جي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة جي خبر بوم منتي دون واخ جيغا خامني موم لا جي مرتدا جي واخ ني يوننتي بي داكو تري اي بل اي نيت وي ديمون زيارة جي خبر فلا تي فيز تو مال تي اي نيت يوي زيارة جي بامل نيتي بدا لاني واخ جوجو رك موم لا ام يينا ليرال سي سونو نياريلو waxtaan bi ñu am xadis boo xam ne dañ koo gaaraloon ci waxtaan bi ñu ne dañoo déglu moor Gueye wala Mourtada Gueye mu tekki ko moom ni mu ko bëgg a tekkee léegi ñu ne nañu déglu boroom xam-xam yi ñi nga xam ne dañoo am darajatul xew ci xadis ñu di leen tuddee ay xufaas di leen tuddee ay almuhaddisuun ñoo xam ne am nañu xam-xamu xadis xam nañ la ca wér ak la ca wérut mën nañu ko tekki tekkin boo xam ne dafay dëppoo ak sawaab mooy dafa am ak njub waaye duñ ko tekkee seen bànneexu bakkan ñu wax ne jumhurul ulama li ñu dégg ci waxu yonent bi sallallahu alayhi ci takk tukki dem ziyaara ji xabru moy loolu dara neeku ci waxuma la dara newu ci waye dafa dagan ta tuyaaba da ci nek waye nak minoritaire yi ci mbolom nyom ñi minoritaire yi ci borom xam-xami julit ñi ñom dañ koy téré yaakaar na loolu buñ ko jangate dinañ ko dañ ko gis ci sun biir waxtaan nak ñu ñew ci jëm hadith bi mané hadith bi jàngoon sama première waxtaan يونتي من لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى بن فتح الباري موي شرح آه، البخاري فتح الباري إمام ابن حجر موكو دفر دفو لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد نينا bi mu waxee illa ila salaatati masajid dafa am lu ñu tuddee al mustasna minhu mahzuuf mustasna minhu mooy loo xam ne kenn tudd ko te loolu yonent bi tuddul nag dafa am lum ci génnee dafa am lum ci génne ne loolu moom bokkul ci tere gi maanaam yonent bi dafa am lu mu tere dafa wax ne kenn waru la jógee këram jëm beneen dëkk mu tudd tukki daganut wala jaaduwut mu jëm ci benn barab boo xam ne dafay jaamu ji yàlla lu ñetti barab yii léegi nag barab booba yonent bi tuddul maanaam ñëwul ci xadis bi loolu mooy almustasna minhu léegi loola lan la ndax jàkka wala ndax xabaru la wala ab palaas la loolu nag waxu borom xam-xam yi moo koy leeral waaye man li ma bëgg indi rek mooy ni ko borom xam-xam yi tekkee imaam na xajar nee na dafa am lu ñu fi xasafee loolu la ñu fi xasafee nag boo koy def taqdir mooy da nga koy nattale ci xadis bi nga soo ko mën a dégg xadis bi taqdir bi nag benn danga koy def muy am mooy lu général boo ko généralisé da nga naan yonent bi dafa wax ne daganul kenn takk ak tukki jëm ci place bu mu manti doon lu dul ñetti place yi te boo waxee loolu nag ah boobaa kon daganul kenn tukki ngir sàkku ji xam-xam daganul kenn tukki ngir defe ji commerce daganul kenn jóge fii dem France wala Amérique wala Saoudia wala feneen fu mu mënti doon ngir di fa wuti ji dara lu dul ñetti jàkka yi rek moo daggan pour nit jóg dem fa loolu nag la Ibnu Hajar wax ne loolu taqdir boobu maanaam amul njariñ parce que boobaa dafay tere lo xamné ñëpp xam nañ ne lu dagan la lolu depp wul ak waxu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam léegi mu ne kon dañuy indi benen taqdir bo xamné ne dafay am munasaba ak barab bi bu boba nak yi ñuy wax dafay daal di dàqu boobu mooy ban moy da ngay wax ne la tusaddu rihalu laa tusaddu rixaalu ila masjidin lissalaati fiihi illa ila thalaatha mooy kenn warul génn këram di tukki jëm ci jakkay bu mu manti doon ci aduna bi ne dafa bëgg a julli ji lu ñett ñetti jàkk yi rek mom mo jar jógal nga dem fa julli ci neena li moy taqdir bi nga xam dafa am munaasaba dafa mengo ak li yonent bi mujjee wax ginaaw bi mu waxé illa neena bo waxé waxee nak fa yabtul bi zalika khawlu man mana shadda rihali ila ziyaarati alxabri alsharifi wa gayrihi min xubuuri saalixiin nee na taqdir bii boo ko defee ba pare ki wax ne dem ziyaara ji xabru yonantu ba dañ koo tere te loolu maanaam ci mbind ibnu taymiya lañ gis ne mu bind moom bind na loolu ci fataawaam ne loolu yonent bi daf koo tere moo tax saxaaba yi daawuñu ko def loolu moom moo ko bind nee na wax jooju wax ju yàqu la Ibnu Xajar moo wax de nee na ki wax lii wax jooju wax ju yàqu la ki wax tamit ne jóg ziyaara ji beneen xabru ci xabru yi nit ñu baax ñi dañu koy tere loolu tamit wax ju yàqu la Ibnu Xajar moo wax de kon nag yéen ñiy déglu di ay ndaw wala ngeen bëgg a dégg déglu te xam luy diina lislaam lan la santaane ci ziyaara ji xabru wala tukki dem ziyaara ji xabru na nga yëg ne murtada Gueye lii mu wax da koo sosal yonent bi ibnu xajar nee na waxam ji wax ju yàqu la ku bëgg xam fan ibnu xajar fan la ko waxee demal ca fatxul baari mooy sharxa bi mu sharxa téere saxiixul buxaari yi danga fa fekk wax ji waaw ci ñetteelu xaaj ba ci safxa 66 maanaam page 66 danga fa fekk mu wax fa lii moom ibnu xajar kon déggiinu fatxul borom fatxul baari di ibnu xajar juyoona lool ak li nga xam ne moom la Mor Gueye wax ak keneen ku tekki xadis bi te wuuteeg nii ñu ko tekkee di baatu jàkka waaye baatu xabru amu ci moom ba léegi mu ñuy nettali nee na imaamu subuki tamit wax na ci téeram bi ñu tuddee Shifaa u Siqaam في زيارة خير الأنام نحن دفع وحنا وقد التبت ذلك على بعضهم فزعم أن شد الرحال إلى, إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع وهو خطأ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه إمام أسوبك ما وخ يتيري بوب ملين وخ سانق نينا أجحصو أمنا تي ci ñi nga xam ne dañoo wax te seen wax ja tegu ci ko ak njuumte ndax de dañoo wax ne képp ku takk ab tukki ngir dem ji ziyaara ji fu dul ci ñetti jàkk yi loola yonent bi da koo tere nee na loolu képp ku wax ne ak tere la danga ngaa juum da ngaa am ak lënt ci sa biir xol wala ci sa biir xel dafa laaj nga demaat ci ñuy jàngale xadis jàngalin bu wér ñu firil la xadis bi ci firi bu wér ndax kat xadis bi dafa am lu ñu tuddee al istisna ak al mustasna minhu mooy dafa am lu ñu génnee ci li ñuy tere te jëmmi la mu tere nag tudd ko waaye daf caa génnee ne nangam ak nangam bokkul ci li may tere te la mu tere tudd ko te loola mu tudd nag dañ ko war a dégg ci biir wax ji te mu ne boo ko bëggee dégg nag déggin boo xam ne dafa am munaasaba mooy dafa am ak xeetoo dafa am ak euh, euh, ak jub da ngay wax ne istisna bi dafa war a bokk ak xeet ca mustasna minhu ba mooy li nga naan ah loolu moom terewuma leen ko dafa war a ak la muy wax ne moom la génnee ca la muy tere nee na kon maanaam xadis bi daal boo koy wax danga naan kenn warula takk ab tukki jëm ci benn jàkka ci jàkka yi wala benn place ci place yi ngir jëmmi place ba ludul ñetti place yi rek ñom ñoko jar moy la tushad la tushad rihal ila masjid min al masajid aw ila makan min al amkinati li ajli dhalika al makan illa ila thalathati al mazkura li imam asubuki moko wax ci shifa u siqaam fi ziyarati xayril anaam mu tekke wa wa al rihal bu le dafa tak ab tukki nak ila ziyaratin jëm ci ab ziyarah ab ziyaara la wax moo xam da ngay ziyaara ji nit ñu baax walla nit ñu nekk ci ay bàmmeel te doon ay nit yu baax wala dangaa dem di sàkku ji xam-xam aw talabi ilmin nee na loolu nekkul na jëmmi place ba moo la tax a jóg waaye jëmmi ka nekk ca place moo la tax a jóg moo tax kon ki jógee fii na damay dem Tiwaawan ngir ziyaara ji nekkul na jëmmi Tiwaawan moo ko intéresé waaye jëmmi kañu def kañu fa rob moo ko tax a jóg ndax nangu gum nangu cër bu mu cër bu mu am ca yàlla ak jege gu mu jege woon yàlla walla mu jëm Tuubaa tamit noonu rekk la mel jëm mi kañ forob muy Cheikh Ahmad Bamba moo ko moom la sopp nangul ko cëram ci yàlla moo tax mu jëm fa bu dee fees la jëm tam ca Marok dafa xam ka fa tëdd ne nitu yàlla la mu nangul ko cëram am njort lu rafet ci moom moo tax mu jóg jëm fa te loolu nag imaam Subuki nee na loolu bokkut ci li tere maam Subuki moo na wax de moom loolu la déggee ci xadis bi te imaam Subuki moom weddina ibnu Taymiya ci mbind mu yaatu ku dem ci téere bii ma la wax ko fa fekk ci wax ju wax ibnu Taymiya wax ne loolu saxaaba yi dañu ko daawuñu ko def imaam Subuki dafa weddi loolu wax gu wax ne imaam maalik sax dafa daan tere loolu nee na imaam Subuki nee na loolu imaamu Malik waxu ko te wax ji tuumaal ji ko ibnu imaam ibnu ibnu taymiya tuumaal nee na loolu amul isnaad maanaam loolu borom xam-xam yi nga xam ne ñoo bind ne Malik wax na nangam Malik wax na nàngam loolu benn borom xam-xam bindu ko waxu ko wax na Malik dafa mas a wax ne day tere ku jóg ngir dem ziyaare ji xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet Malik musta wax loolu ku ko wax na da koo déggee ci biir ay waxam nga waxal ko ko waaye Malik musu ko wax imaam ki traité na loolu ci lu yaatu. ci téeram boobu ñu tuddee Shifa aw Shiqaam keneen a ngi nii ku ñu tuddee a Cheikh al Kurmaani ko xam ne dafa sharxa téere bii di saxiixul Buxaari moom tam dafa wax ne istisna bi ñëw ci xadis bi istisna mufarrax la wala istisna mufarraxum istisna mufarrax nag boo fay def taqdiir dafa war a nekk taqdiir boo xam ne aamul aam la mooy dafay général nga xam ne du bàyyi dara ca la ñuy def istisna ak mustasna minhu ba nga xam ne dafay am munaasaba nawaan wa wasfan lii la imaam Cheikh al Kurmaani wax bi muy sarxa xadis bi dafa wax ne fa in qulta fa taqdiru lkalaami laa tushaddu rixaalu ila mawdicin aw makaanin bu dee da nga ne wax ne kenn warul takk ab tukki jëm ci benn barab ngir difa defi ji ak jaamu yàlla nee na boo waxee loolu rek fa yalzumu an laa yajuusa safaru ila makaanin ghayril mustasna kon kenn wartu la départ jëm fenn fenn fudul ñett yi yonent bi tudd te boobaa kon xaraamal nga ku jóg ziyaara ji Ibrahima al alxalil alayhi salaam wala ku jóg ziyaara ji keneen ku dul moom te loolu nag bokkut ak li nga xam ne moo wér ndax mu ne lan al mustasna minu fi l mufarraq la budda an yuqaddara aam al aam عم العام يجب من المراد بعام العام ما يناسب المستثنى نوعا ووصفا يعني لم نمو تي عام العام موي لي غنا جنرال تي لي ني استثناء فوف نانا يعني موي لو خاندي دا فا ام ديبو اك موم تي ا آه، نو قيد وي اك تي ملوكان بي مو جوخي تي مثال مو بو واخي ما رايت الا زيدا غيسما كودول زيد نانا ليغا نامو تي غيسما كودول زيد موي نيت ني غيسما كين تي نيت زيد wala gisuma kenn ci góor ñi kudul dul Zayd yaa nga comme da nga wax ne maa raaytu rajulan aw ahadan illa Zaydan gisuma kenn ci góor ñi ndax Zayd ci góor ñi la bok gisuma kenn ci nit ñi Zayd ci nit ñi la bok kudul dul Zayd ah boobu kon wax ju jublu waye bo ne won maa raaytu shay'an aw hayawanan illa Zaydan bu boba baaxut parce que lutax moy mooy Zayd Zayd bokkul ci hayawani zayit ci nit ñi la bokk zayit ci nit ñi la bokk kon daal nee na kon liñ ñu war a nattale fii mooy laa tushaddu ila masjidin illa ila salaasa kenn wóoru la takk ak tukki jëm ci benn jàkka gis nga ñoom ñëpp de baatu masjid bi la def taqdir waaye kenn deful baatu makaan jël ko eh, kenn jël ko def taqdir baatu makaan bii nag moom la ngóor si di Murtada Gueye jël ko def ko taqdir mooy pakala place boo xam ne da nga fay jaamu ji yàlla nee na loolu boo ko defee yonent bi da koo tere lii nag borom xam-xam yi dañ koo dàq jumhurul ulama dañoo dàq loolu dañoo daganal ku jóg tukki ji ngir ziyaare xabru ndax loolu jote wu dara ak xadis bi ci sunu ñetteelu jotaay incha allah dinañ ko gën a leeral